mooy diggante Franc Forza njaago bi nag gis naa ko Forza ak waa Fass ni ñu ngi préparé wu te Fass am na fu leen combat forja ak ki nga xam nii tey jii mooy mhm. Franc war naa am fu leen toll ndax lagros daa def sorti barki démb ñàkk ko ñu war a ëmb Serigne Ndiaye numéro 2 ak forja ci benn ngoot waaye ki ñuy jàkkaar lool xale bii ñuy jàkkaar lool di franc mhm. xale bi waaj xale bi waaj de dafa kanji boo amoon waaw lamb jooju li ma ci wax léegi ñu xalaaji ba def sax ma waxtaan wi lo ci man di deg moy njaago parcel bi luñ ko jiiñ moko def mhm. ah non xale la ba pare te lima neex ci mom moy il est très ambitieux hmm? ba pare te bëtam bi dafa am fu mu ko tek dem ba pare xamna fu lan moko ko fa yóbbu moo mu nek ci lancé bi mu nek <laughs> té lu mu la wax franc li gën a dangereux ci franc mooy bu ñëw ci lamb day wax non franc day war ci lamb franc bëre mag lay bëre sha allah waaw xale la bëre mag lay bëre parce que bu ñëwé sa bu lamb ci imposer nga gëdd ko mu def 3 pas en arrière da koy def bokul ci mbeur yi nga xamanteni dañu orgueilleux orgueilleux moy mbeur mo xamanteni lum la wax ko mhm. lamb ji ñewé donte arrangé wu ko dina ko def lolu nak du lamb làmb fola mee ku daanu rus mhm. mais man nga gis franc état de forme bi mu indi ndax man tay jot ay information gaay ndax tay ji xawna genn côté côté lagrose mais jot ay information mhm. gaay fa ak ni gars yi fonkee combat franc for Forza bii Forza lan la war a préparé wu 100 pour cent ndax du bugguma sax ñu dug ci analyse komba bi mais dama bëgg ku ci nekk rek dafaakat ji ku ci nekk nan nga war a waaje combat bi ndax Forza war na ñàkk combat bi franc yaakaar naa ne combat bi combat capital combat piège sax combat bii la franc di dugg ci ponkali parce que parce que franc ki muy bëreel la ki muy bëreel c'est champion d'Afrique ki muy bëreel suma ma juumul bu jëlul drapeau chef de l' état finaalu na drapeau mhm. chef de l' ak laay njombo donc ki bëreel bëree dafa nekk ci moom mhm. Mhm. Franc ki muy bëreel bul fàtte ne lay waree waaye doomu Lebu la ki muy bëreel bul bëree dafa nekk ci moom te aw fit daf koo judduwaale ba pare Mm-hmm. non ba pare mën a xeex nag lool. te ba mm-hmm. pare néewul mm-hmm. kàttan. day delloo de. ndax du yaakaar warta yaakaar ne combat bi ndax ñeme nekku ci heure Tapha Kane yi ñeme lool Fra ndax nekku ci heure ndax Forza kii bi bëreel warkat la. waaye dafa ah. léeg-léeg la ah. butéel bi di xeeñ. waaye jikko borom ba mel ne du ko parce que Forza dala leer ci leeru yàlla ne bu ñëwee ci combat boobu consigne lay bëri ah non Franc non Forza consigne lay bëri de parce que lamb ji aussi bu fàtte na mooy may Forza mu yéeg moom tamit commencé ñëw ci palier ñoom Boy Niang Sa parce que bul fàtte ne Forza li mu tardé ci làmb dafa bari du coobareem nag blessure la te loolu ndogalu suñ borom la waaye man. Hmm. wax na la su fekkente ne parce que Forza gis nañ ko nii mais xaw ma lan lay préparé mais Forza su fekkee. Mhm. mais Tapha gi li nga bëgg a wax dama la koy laaj état de forme bi Forza feeñaloon ba mu simmee ko li TV ndax état de forme boobu Forza problème bi mooy pour mën a am mobilité pour mën a téye Franc. soo xoolee état de forme Franc xaw naa jël poids. waaw. waaye gis naa ci moom lu woo kongu ci yaram lu woo kongu ci moom loo xam ne ëpp ko doole ci làmb bi mm. waaw waaw mais Tapha Kandji mbaa yaa ngi bàyyi xel ëpp doole ak gën a diis ci làmb mm-hmm. Forza warta nangu Franc ëpp ko doole waaw waaye warta nangu Franc Forza warta nangu gën Franc xam nga xam nga lamb di combat combat mobilité la mais lamb di lamb la joo xamanteni aussi param ci axe yiñ ko mëna béré dafa bari parce que xam nga ñom ñaar seen isil dafa xawa wuté xam nga xam nga forza dafa am euh, euh, manam dafa tam forza tam ak supplé forza day dox ci kaw adversaire fra fra amna ci ñaari option fra hmm. man hmm. nga dox ci kaw mu aspirer la reculer ngay ñew mu dajeeg yow man nga ne mhm. bëreet aussi du reculer nga ne bëreet mu réduire distance bi dem dajeeg yow wureeg yow foofu ci bëreet. Mhm. xam nga lu tax ma wax na lii. Mhm. te képp ku ma jël ci laaj bi dina laaj ci diggante Forza Franc dina la ko laaj. waaw parce que xam nga lan moo tax ma gëm loolu mooy Franc li des ci combat ba pare yéex ñëw te li des ci làmb ji yàggul. waaw. waaw. ci lamb ji yàggul te man jot naa ay information ne génn nañ ko euh, euh, li ma gis tey jii man maa gisal sama bopp ndax man mhm. gisuma gisuma Forza gisuma gisuma gisuma gisuma gisuma Franc mais maa dajeeg Papa Sow ci yoonu la bi ma ko dajeeg moom rek xam naa ne automatiquement ñi dañuy contact bi te heure bi ma dajeeg moom maa ngi da dajeeg moom daanaka ay quinze heures kon ñi xam nañ ni kon commencé nañ contact bi mais te jii li am solo ba am solo mooy li am solo ba am solo mooy forja war a dajanteeg mbër moo xam ne songukat la nga dajeeg mbër moo xam ne day song ci wet nga dajeeg mbër moo xam ci gauche droite boo dëgg na Forza foofu war na faa saxal xeexam wala Forza bu jàppul ngeen bu naa xeex war naa bëri alaaki dafa kànji Forza day njiin de te tànk ba dafa mën a tànk tànkam bi moo tax ma laaj la li ma lay laaj de seetaan naa ko seetaan naa ko école mangé mu jàpp ci giri bóor dóor di ko ci def nu ko neex di ko ci dóor ay padd yëpp moor ngeer defoon manga dóor padd ba góor pape da koo mën a lool ak nga dal na dal ci tànk bi mu njiin la mm-hmm. dafa mën a bëre Forza dafa mën a bëre Forza dafa mën a bëre donc làmb ji bu ci Forza lucidé nekk nekk ci nekk ci biir làmb ji laa wax ah néew ma Franc ko daan parce que Franc moom ku munta daan guddi yi amul xale la macha allah am na doole waaw dafa kañ bu ci bu ci bu ci biir géew bi

ci kaw sax franc mm-hmm. mm-hmm. waaw waaye doxin ba day am yoom doxin ba day réglement da ngay jireeku parce que luur saa boo jugee da ngay oyof param ab luur saa day oyof mm-hmm. ah moo tax ma la ndax pour daawul te bëri pare su bëree lang la seere ko saa bu fra saa bu fra ci wet gi ah dañ koy séddoo parce que da koo mane kuy séddoo ndax ñu mën a jël sax moom day avantage xale forsa warta bëri France day avantage ni bu la fa am na foo xam ne bu la fa hmm. njaago afta dafa gaaw gis nga gis nga gis nga gis nga tafaakaan ji liy hmm. dëggal li nga wax njago bi bañu ko ko mbot ci làmb xam nga tax loolu boo ko mbotee da lay remplacer a bëre te boo lay remplacer loxo ba da koy jël teg ko sa loos bës a bëre mais tey jii tey jii tabakaan ji li ma bëgg a dégg mooy franc lan la war a mën a nekk bi ak lan la xam ne tey jii war naa nekk base am sànq dugg na ci combat ba baaxul ci moom ah non weccoo ay ku ak forza ak ku ko digal franc bu ñàkkee hmm? yaa ko daal waaw léegi nag weccoo ku maanaam soo hmm. déggee mën a la xeex ba hmm, arrangé wu ko ak bañ a xeex maanaam dafa nekk ñaari baat yu wuute dafa nekk dafa nekk ñaari baat yoo xamante ni dafa wóor parce que dafa am mbër yoo xamante ni. ñëwul ma leen a àgg fi nga xamante ni moom nga bëgg il faut nga xeex ak ñoom. mais xeex bi aussi day nekk xeex boo xamante ni yow xeex booy réglementé la. yow bi nga mm-hmm. xamante ni yow yaay wut si. parce que su fekkente ne da nga ñëw nii pour bëgg dëggal sa bopp pour xeex xeex pour xeex. Mm-hmm. da nga ciy jël boo xamante ni day yàq sa làmb. parce que am na loo xamante ni wóoru jël. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw bëre ba. bëre ba nag danañ ci ñëw avantage bu bëre ba ku ci nekk na nga war a aborder combat bi ku ci nekk lan moo la jik ci biir géew ba ku ci nekk li nga xam ne tey jii yaa ngi koy bàyyi xel ci bët ba danañ ci ñëw. alaaji la ma ciy tëjee la ma ciy tëjee mooy la wax ñaar lañ ñoo xamante ni commencé na bi ñoo xamante ni mën nañoo wax sax ne c'est l'expérience face à la jeunesse parce que Forza moom ak Franc ci làmb fuuf mais Franc li ma la wax Franc bul fàtte ne génération ñoom rëg-rëg la ba pare mhm. ñooñu am benn paa buñ ko jiitoo nekke ci kaw xelam mépp mépp mépp ngi ci kaw ñooñu léegi nag foofa la ko fay yóbbu il faudra que mu mhm. passé obstacle Forza mais obstacle Forza bi obstacle bu yomb. Mhm. param. Mhm. làmb léeg-léegi làmb nit daan na ci ku la man bataay. ah si làmb léeg-léegi fadam nga préparé ah, indi avantage yëpp. Hmm? yow arbitre siffle fadam tax léeg-léegi moo tax léeg-léegi làmb naxaree waxtaanee boo déggee yéen ngeen a ku la gën a xam làmb nee ko baal ba dimanche mooy yu mel am fadam mën ngaa song song ba àggul ñu yokk la nga def kaat at làmb dafa xaw a garaaw mais nag ñun comme dañuy wax kenn ku nekk da ngay wax rek ni nga xalaatee wax force faiblesse parce que franc parce que franc man xam naa ne su fekkente ne franc bëre na ak forza wala su mhm. fekkente ne arbitre sifflé na franc yoot ba jàpp forza wala fexe ba maanaam fexe ba wure ak forza ci bëree te jëlul coup boo xamante ni wàññi na ko ah forza am problème mais su ma doon forza bala maa wuree franc ci bëree dinaa ko dóor ba mhm. daal laay tàggoo foofu daal laay tàggoo mhm. maa ngi nuyu nag moom ñemew ko waaw am sama fan club bi nekk <laughs> Atlanta mooma mooma jiite ko <laughs> non xew mën na lu ne xew mën na lu ne maa wala mën na lu ne kenn moom sët Cheikh Yérim bi maa ngi ah, ñëw si lay yaay ba xarit bi ci job xew mën na lu ne ci làmb tey armée de l'air ñoo ñu invité woon armée de nga xam ne ñoo yor kaaraange jaww ji xam nga loolu da ay caaxaan ah mais daal waaw waaw maa ngi nuyu ñoom Souleymane oh, di nuyu ñoom Béba Diop kii Kodou ay ñoom Ado vraiment coach Bakary gis naa ko fi grand yu ci vraiment boo limee doo matal mais boo limee doo juum da nga dul matal borom xaftaanu gumba bi su ma sañoon gars yi kenn ku ci nekk damay jaar sa tur barke alxuraanu karim parce que dañu baax ñoom Thierno Loum Elgo gars yi ñëpp faram maa ngi leen nuyu di leen ziar faram xam nga kii wax kii diglooy mbokkam xam nga loolu kon ñi amuñ seen fay yàlla na seen jàmm yàgg billaay barki leen di bi tawaa ji démb déggaatuma la yàlla yàlla na la yàlla defal jàmm dafa kànji <laughs> waaw dara ci kanam. di nga ma dégg boobu dama dama newoon ci kaw dama jàppoon kurus boobu.